dam leen nii mu ngi ne la mu ngi ne ah waaw salaamaaleykum saa baay saa baay ñëw nañ fii nga xam ne eh, mooy commune de Pekes mm. ñu nekk si euh, kër chef de village ban chef de village la. Mbaye Dieng xawlu. chef de village mm, Mbaye Dieng xawlu. yéen lan mooy seen jafe-jafe fii yéen waa waa village da xawlo lii première bi day jaar nga ci yoon bi bu ñëw. waaw gis naa ko moom. la ko dalee euh, ngaay ba fekkee gisul. yoon bi baaxul dëgg la. dara yoon bi baaxul am diggante bii nag waxuma ko. ndax gis nga ko moom mhm. ndox. amu ndox. la déedéet gone yaa ngi bii yi a potay kese lan am seen digg fa ndox mi jógee ñëw fii fukki kilomètre ak juróom quinze kilomètres yéen amu leen ndox bu ndox bu set bu ngeen naan léegi fan ngeen fan ngeen di foté seen yére yi ah fi mu nekk may la ci forage bi moo ñuy jox ndox jëlee nii fay moo dañuy fay root dañuy fay bëgg fas gis nga fas yi ni ñu fii amul robinet amul dara. Ah, dara. da ngeen dem fële roote ay bidon. waaw ñëw sotti ko demaat. dem 15 kilomètres. 15 kilomètres. am ngeen fi poste santé wala case de santé. wala district am na fi am na am na am na ñu fa nekk. Ah, am nañu fa nekk am na benn docteur kese moo fa nekk. kenn. kenn kese. am ngeen sage-femme fii. amul am ngeen sage-femme fii. amul sage-femme. bu ngeen ni bu bu bu bu suñu. bu suñu koy réewle amul dara. amul leen ku leen di dara. moom docteur góor buy faj ba mu fekk. docteur bi rek moom mooy moom mooy kii bindi raw réewle dem. waaw lépp amul jigéen bu bu ñëw fi sax. amul ah, jigéen edde. Ah, gisuma ko bu jógee woon ngaa yenn saa yi daal ñëw fi ñëw fi keneen bi suñu. courant bi nag. rajo sampan poto yi waaw ba xëj lamp yi jamono ñu koy fii eh, muy tàkk mhm. Moustapha si laa ko fexe ba mu tàkk mhm. loolu la noonu soo xam mhm. loolu daal la lu ñu xam ci gouvernement bi moom ba mu ko sosoo léegi nu am ko taalal xanaa taalal depuis 2012 ba léegi dara amu leen ko fi lu loolu kese yi fi eñ ñay def depuis 2012 ba léegi ba léegi gëstuwuñu leen defu leen dara dara dara lu ñu mën a dimbalee fii léegi nag ñu ñaanoon la jiw yi man nag jox nañ leen yi nag ak engrais. loolu moom bu ko ci tudd juróom ñett du Ousmane yow du kilo liibar la ah aw tur ñetti kilo kilo. ñetti kilo gerte. gerte bopp nekk ñetti kilo gerte. waaw dëkk baa ngi nii te sama ma ma bàyyi may fekk waaw kilo gerte moom la léegi. yéen yéen bàyyi ngeen am ngeen ngooñ wala am ngeen dugub amu leen dugub léegi yéen yéen bàyyi ngeen am ngeen ngooñ wala am ngeen dugub amu leen dugub léegi sëñ bi muñ baal ma rek tuuti comme que yow sa baay wax na mm-hmm. yow mi nga xam ne yaa ne yaa ne ci tool yi lan mooy seen jafe-jafe si àll bi yéen. seen jafe-jafe si àll bi lii mooy engrais ak jiw euh, mooy première loo xam ne moom la manqué. Mhm. Euh, fi mu ne mbayam rek ndax mbay boo fekkee amuloo engrais amuloo jiw da ngaa damay bay rek mënuloo bay. ndax mbay boo mu jiwul gerte jiw jiwuloo dugub bu baax sa mbay koo ci bay cent kilos mënuloo am sax quatre naaf ndax manqué ma foofu suñu dee. aussi engrais bi kii bi euh, yi yu dee manqué naan jiwi yi jiw aw tuurati rek kër gi dugg fa dugg fa ñetti boobu nekk ñetti kilo nga noppi xoolee ku mat rek ay quarante kilos nga wax ji du mat quatre loolu du mbay ay bay ñebe bay loolu du mbay li nga xamante ne moo manqué moom bëri na courant bi nga xam fi mais baax na nag macha allah baax na mais ndax dëkk bi dafa yaatu te daanaka li kuuri dëkk bi maanaam li penc bi ci la courant bi yem bi nag mooy alentour jumaa jeeg yooyu noonu si yeneen koñ yeeg yooyu noonu yeneen quartier yi am na quatre kër yu ci mu nekk mu nekk cinq yu gën ci ginnaaw li nekk ci penc bi moo quatre vingt ngi ci ginnaaw yoo xamante ni courant kon manque ni bëri na lu manque mbayum noor maa ngi fi mbayum noor maa ngi fi Euh, ndox ñu ngi nii boo yaa ngi si yëpp extrait si benn euh, forage petit forage bu fii mais ba léegi xam nga rek yaa mën a xam suñ pour a ginnaaw loo bëggee fi da ngay simb rek waaye tax nga mën koy gën noonu ñu ngi ci nag moom ndax ñun moom boo defee dañuy jéem suñu deful dañuy jéem ndax loolu lanu yare loolu suñuy bàyyi loolu lanu yare seen seeni moom li fekk mooy chaque jour yaa ngi fekk ñuy jéem moom boo ne defal dañuy jéem boo deful dañuy jéem bu demee benn dañuy quoi suñu benn boo ci fekkee benn baax na bu ci fekkee benn ñu ko nekkul benn. léegi nag lan ngeen di wax ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko mu fi ñëw tey ci dëkk bi. kii moom dañ koo sant bu baax ndax lii mu def nii dañ ko mës a gis ndax sama bàyyi ngi nii nii mos koo gis. amul benn président bu fi ñëw mos a ñëw kenn mos fay ñëw. ñaar fukki at juróom ñaar fukki at ak juróom benn am naa ko juróom ñaar fukki at mooy soixante soixante six ans 66 ans ba léegi góor gi amul benn président mu musul dugg fii tànkam. muy ab muy Abdou Diouf Senghor. Ablaye Wade ba si Macky Sall. kooku moom waxumaa yi waxam moom kooku moom mbaam xuux waaw kooku mbaam mbaam en tout cas daal yéen euh, lan ngeen lan ma seen sen dernier mot si Ousmane Sonko. Euh, si dernier Mm-hmm. mu nekk président ñu ñaan mu nekk président mm-hmm. da na sëñ bi li ma la mm-hmm. ñun dëkk bi ñu nekk nii dafa tuuti te kër gi mu dugg ne ku fi taal ku maanaam ku fi tàkk fi nga tàkk muy ban kër noonu yàlla muy kër gi sëñ bi kër sëñ Modou Mbacké kër sëñ Modou dëkk bi ñu nekk nii dafa tuuti te kër gi mu dugg ne ku fi taal ku maanaam ku fi tàkk fi nga tàkk muy ban kër noonu yàlla muy kër gi sëñ bi kër sëñ Modou Mbacké kër sëñ Modou Mbacké dafa dugg di fal du dara ku lay fal moom lañ te dumu loolu lu mu dugg yonent bi yu ndaw nekk mooy ñoom Badi Ndiaye ñoom ñoom ñoom Mara yi bëyu ndaw nga fi yoo xamante ni mm. ah, ñooñu jëre eh, jàpp ndax eh, béyu béyu mësuñu bàyyi seen seen tànk ci Sonko tey soo lan ngay wax jeunesse bi nga xam ne amul guñ carte d'identité bi nga wax ñu pour ñu wuti mm-hmm. fa ci yéene fal Sonko xam ne moom solo man nag ma fa moom mën naa ko jox sa ngir wàlle ko merci beaucoup sa baay sa dernier mot si Ousmane Sonko loo koy ñaanal Ousmane daal yal loolu daal la koy ñaanal te bu fekkee lu jullit ñaanal morom jëm daal ko yal na doon président parce que maam Thierno. ndeysaan ooy maam Thierno Birame. waaw sama sëriñ. daaru. est sant nañu ñii de seen fas yaa ngi ne amuñ sax ndox bu ñu naan. ñii ndox yi ndox yi du ñu naan ndox. waaw ndeysaan. xool ah papa jee nekk nii doon ji.